yàlla na ko nangu li nga xam ne wattandiku doon na ko jiitam ci weer wi ndax dégg ngeen ci xadis ba la mu wax ndax weer koor dafa bokk ci farata yi yaa ayyuha lisina aamanu kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala lisina min qablikum laallakum tattaqun waaye eh, dégg ngeen ci xadis mu wax ne man man lam yada xawla zuhuri wal amala bi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 di ci ndokkeel ñi nga xam ne ñoo la bokkal yoonu murit tam ni tamuy seen kilifa di ñaan itam suñ borom nanguñu ko ci barke Sëriñ nag ci ay kàddu yoo xam ne sëriñ bi dafa ne nañ ko jëme ci ñëpp kàddu ñaar rekk la benn bi mooy fàttali bi cees mooy jot li ak cant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 ne ko kilifa bu jëkkee daa defe eh, digle gi ak tere gi rek koonoo mahal xaqi mahama kallafakumul am fa la koy teg mooy li war a digle ak sañ ko tere eh, na ko kilifa bi daa defe rek mooy wax li war a wax nit ñi buñ ko diggee jëfe jëfe ko mu jariñ leen buñ ko déggu ñàkkuñ ko jëfe rek boobaa moom mu wàcc kon loolu mooy li nga xam ne mooy li li ko boole diggam njaboru Sëriñ Tuubaa gi kon mu ngi fàttali ci réew mi xam ne fan yii xew-xew yi bari na lool rawatina bakkan yi ci rot loolu nag nee na la ci jëkk ci lim ci fàttali mooy delluwaat suñu boroom ngir xam ne bakkanu doomu aadama dafa diis danaa ci leeral li tax mu wax loolu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 ngir nga défendre sa bopp wala ñu attaqué sa diine kon loolu boo ko see seetee atte boobu itam kon da ngay gisaat diisaay bi ba ca tool tool dollikuwaat mooy alalam alalam boo gisee lislaam santaane wasaarixu wasaarixatu faqtahu aydiyahuma aydiyahuma jasa bima kasabana karam moo tax mu santaane ku sàcc ñu dagg sa sa loxo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 jullit yi di ko fàttali taalibe yi na ci ñëpp bàyyi xel lépp loo xam ne mën naa indi bakkan bu faatu walla mu indi fitna rek nit ñi nañ koy wattandiku bu baax a baax te xam ne ku ko def ku ne sa bopp nga koy defal képp koo xam ne sàmmantoo loola itam bàkkaar ba suñ borom lam diggee woon euh, dara mënu ko dindi kon sëriñ bi nee na mi ngi koy fàttali ñëpp di ñaan itam nag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 li yunfiq su saati min saatihi bu man qudira alayhi li fal yunfiq ma aatahu la kon loolu sëriñ bi neen loolu lay fàttali ñëpp ñu bàyyi ko xel di di di leen ci ñaax di leen ci soññu ñi nga xam ne itam loo ñooñu ci seen loxo la nekk ñoom itam ñu gën a def yitte ci fexe ba di sàmm nit ñi di leen aar ndax lool itam ñoom la war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 kon la euh, kilifaam gu tedd ga Cheikh Saliou Mbacké daa wax rek ne joxe bi dafa jiitu laaj bi nee mi ngi sant euh, ñi nga xam ne ñoo njabaru Serigne Touba di sant mboole mboolemi seex yi nga xam ne euh, kenn ku ci ne la nga yor Serigne Touba la ko nañ ne nag bi mu wootee liggéeyu Serigne Touba ñëpp bàyyi nañ seen i dem ci liggéeyu Serigne Touba loolu na kon nee na Serigne Touba mi nga xam ne moo tax ngeen koy jëf nee mi ngi leen ci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 bokk na ci yi nga xam ne seytaane da koy jax-jaxet xooli nit ñi ngir di jéem a yàq seen pëstéef te pëstéefu doomu aadama euh, suñ borom sàmm ndax inna ibadi laysa laka alayhim sultaan ñi nga xam ne seytaane mënuñoo am ci mënta am mënta am ci ñoom yoon ñooña jéem a yàq seen pëstéef euh, doomu aadama tuuti na ci jéem ko def kon ñi koy def itam nañ xam ne naqare nit ñi lool te naqar wi kat bu dee bu continuer ñi ko war a saafara dañ ko saafara te buñ demee ba ba di ko saafara it dana àgg foo xam dugal kenn kon loolu itam nit ñi war nañ koy bàyyi xel bu baax te xam ne bu fekkee lu baax lañ bëgg wala ñu bëgg yee nit ñi war na am feneen fuñ ko mën a jëme wala feneen ñu ko war a waxee waaye loo xam ne boo ko waxee jubloo ci dara du ma jéem a yàq position nit wala ngay saboté ay nit loolu koo dëkkal te respecté ko sax te gëmoo ko ndax sëñ Abdou Lahad wax ne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 yéen itam ngeen ci bàyyi xel ndax am na ci loo xam ne bu ko nit indee ko ci yow mu wóolandi ak yàqare loolu boo ko jàllalee itam yéen yaar yéen yow atte mm-hmm. te wax ne buñ la joxee benn information na nga ko vérifier ba xam ndax liñ la wax dëgg la am déet mm-hmm. ndax euh, lam cee bañ euh, fatabay an tusibu xawoon bi jahaala fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin mooy bañ nga joxe benn